jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci yaakaar naa fii BCEAO la de Garga de waaw ñu ñëw fekk fi ay champion yi nga xamante ne vraiment ñu ngi fi di entraîner muy écurie Jàmbaar Wrestling Academy vraiment ñu ñëw seet si ci Garga 2 fas yéene waxtaan ak moom tolluwaayu làmbam actuellement gis nañ bi mu bëree wala digganteem ak Maama Lamine gis ngeen lépp loo xamante ne xew na ci te bëggeewu ko woon noonu adversaire bi bëggeewu ko noonu ñu ñëw fekk ko fi muy entraîné bëgg waxtaan ak moom lu bare bare bari ci wàllu làmb Garga 2 maa ngi lay nuy bu baax di la siyaar waaw jili maa ngi lay nuyu ah di nuyu képp wax xam ne yaa ñu seetaane ci Wassare TV hmm. di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu seetaan ci internet bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal yàlla na suñu borom yërëm te xaaral ci àjjana firdaws ak mboolem jullit mm. waaw di nuyu fi nga xam ne fi nga ma fekk nag mu équipe bi nga xam ne fi laay tàggatoo mm. di nuyu jàmbaar Wrestling Academy bi yëpp di nuyu staff bi ko commencé ci mm. président équipe bi père ba ak njabootam yëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa turo sant di sant coach yi tamit di ak grand yaaram Gueye ñu ngi nuyu ñëpp. Hmm. du ñu la laaj ci combat sa diggante ak Mama Lamine ndax yaakaar naa la ci amoon solo yëpp wax nga hmm. mais forme bi nga indi dafa jaaxal ñu bari ci wàllu làmb. rawatina amateur yi parce que ku toog cinq ans bëriwul. Hmm. indi forme boo xamante ne bi nga simee ko askan bi yëpp dañu nangu rawatina ñu nekkoon ci làmb ji yëg nga loolu yow. waaw d' abord dañuy masaw sama adversaire ba pare Mama Lamine. di ko masaw bu baax a ndog li dal ci kawam. Hmm. di jaale waa Diamaguène bi yëpp di masaw tamit seexam Serif. Hmm. di jaale waa Diamaguène si kàmbaaw bi yëpp. Hmm. parce que xam nga kenn buggee ko woon noonu waaye loolu la suñu borom dogal. xam nga làmb moom boo ci nekkee dangay ngay waaj rek man làmb maa ngi ci bàyyeegu ma. comme bàyyeegu ma chaque jour damaa nekk ci ay loxo ñu préparé ma ni ma war a préparé. amoon nañu yaakaar ni sax dina indi lu ëpp loolu waaye koor gi fi jaar moo tax lu bari sax waaye. li mu a indi lu ëpp man Garga dama indi lu ëpp loolu man loolu dama ko xeeb. wallaahi dama koo xeeb. man xam naa ne xam naa ne man damaa am lu ëpp loolu ci état man xam naa loolu. Hmm. parce que man nangu naa cee daj ay coono te écurie bi ma nekk aussi mooy ñu ma jàmm comprendre hmm. te wax dëgg yàlla képp ku xam Garga da xam ne ci entraînement nga ko xam. Hmm. koor gi fi jaar ak yenn affaire yi fi jaar moo tax yu bari yu ñu waroon def sax defuñu ko. man pour man wax dëgg yàlla loolu sama forme bi mu bëgg top top top boobu du boobu. mais forme boobu est-ce que doole la Garga 2. est-ce nga ni am nga doole ci ci ci ci jour boobu. non macha allah wax dëgg yàlla doole ji moom wax dëgg yàlla foo ko natt weesu na. coach yi sax laa koy laa koy parce que ñoom xamoon nañ ne li ma yor ci doole dafa maanaam dafa bari trop. Hmm. ñoom xamoon nañ loolu moo tax bi lamb ji desee semaine. lu ci bari dan koo wàññi quoi. mais loolu nappul gaa yi de non man yàlla xam na ne état état yi de forme bi bu keroog bi. Hmm. wallaahi mën naa indi lépp loolu. du question internet yee tax may wax loolu waaye man xam naa ne mën naa indi lépp loolu. diile hmm. wallaahi ñaata séance nga doon entraîné par jour. non koor gi deux séances laa doon def. boo xëyee dama doon def avant ndogu. avant ndogu. su ma ñëwee footing def chargé physique ci géej gi. Hmm. su ma paree toog ba ndogu ba pare ay dix heures onze heures ma dem saal ba ay une yooyu. comme ça ba une heure du matin. ñëw dallu nekk hmm. nga nga di ko def. continuer noonu ba koor gi aussi loolu tamit maa ngi sant Papa hmm. waaw parce que wax dëgg yàlla di sant waa Alioune Sow bi yëpp. gars yi fa nekkoon di ci jàpp yëpp ñëpp. maa ngi leen di sant bu baax parce que coach Papa Ndiaye aussi may ma woon jàmm. parce que su hmm. ba pare rek moom daf may woo xam nga coach boo xam ne da lay yóbbu saal entraîné ba pare ne la reer soog a ñëw. loolu xam nga yombul quoi coono yi wax dëgg yàlla loolu lépp hmm. mu doon daj ci moom hmm. Papa Ndiaye ñu ngi lay sant tamit bu baax baax hmm. di sant tamit sama coach Ibou ah borom crossfit bi waa saalu immeuble Kébé bi yëpp maa ngi sant gaa yëpp yi fa nekk wax dëgg yàlla ñu bari dañu ne Garga 2 dafa retard ci làmb parce que du fii lañu doon xaar Garga ñanga ñan nga débutéel ci làmb non ñi ma débutéel kenn ma ñan la parce que man génération ñoom doomu dàngu laa ñoom ñoom kii nu mu tëddee ay Diène Kaïré yi. Hmm. ñoo bokk génération ñu ñëpp ñu ngi ci làmb ñu ba léegi kenn demagul bàyyi kenn. c'est que làmb dafa toll foo xam te man am lu may wax du ma tudd retard parce que jaamu pexe yàlla dogalam. parce que hmm. yàlla lu mu namm rek loolu moo gën ci ñun. Hmm. Garga soog naa cinq ans bëri waaye teewul sama morom yi nga xam ne ñoom ñu ngi doon bëre taxul ñu raw ma. parce que ñoom ñenn ñi dañoo année dañoo am année blanche ñenn ñi dañoo bëre machine nul. xam nga daanantewul seen biir quoi pour man maa raw. comprendre nga waaye lépp da ngay xam ne suñu borom moo dogal loolu quoi lépp lu suñu borom dogal nag da nga koy nangu. Hmm. léegi nga jógee ci loolu. sa diggante ak euh, doomu daam. gannaaw yaa ko daanoon. ngeen bëre nga daan ko. bu taxawoon tey ne la Garga damaa bëgg nga may ko nga may ko revanche est-ce que di ko may revanche. waaw xam nga par exemple mooy la ma la rek làmb li ma du biir day xëy rek aussi sama combat ak doomu daangu actuellement nii am na combat yu ko gën a nekk. au diapason xaw ma lan ngay waxee xaw ma. yi ko gën a nekk au top. quoi top quoi voilà parce que doom daangu bëri nañ ba pare. Hmm. ma daan ko teewul maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko carrière bu rafet. combat yi nekk ci kanam bu dul waa parcelle yàlla may ko ci ndam parce que tamit champion la te yéene naa ci xaalis bi tamit fi mu nekk nii ci làmb sax du place am wax dëgg yàlla. Hmm. comprendre nga comme ñun ñii ñëpp. maanaam ñi ñu war a ñoo ñu war a jël ñu bëre du question ay may sens man du gars yi bëri di daan nga loolu yaa leen raw loolu mënut a nekk. déedéet comprendre malgré gëj a bëri dafay am waaye am na ci ñoo xam te ni yàlla xam na ni ñu ci làmb te gënuñ ñoo saf mbër. comme ñan. non bari na man du ma tudd turu man moom boo tuddul ma tudd. te man damay lim benn par benn. man koo ma lim pièce par pièce. bu la neexee sa diggante ak Moussa Ndoye yaakaar naa ni ci ñaari défaite la jóge tegle ko bëreeg Garga Mbossé mu daan ko. Mhm. mu bëreeg Sa Thiès mu daan ko. Mhm. actuellement Garga 2 am na état de forme bu mu indi ci làmb. Mhm. sa diggante ak Moussa Ndoye amateur yi ñu ngi ci wax. waaw promoteur woo na ma wax ma ci quoi man ko demleen ngeen seeti ko ba mu nangu parce que man aussi. làmb du ma topp ci ginnaaw kenn naan kaa ñu bëree grand nag gaa suñu grand la moo ñu jiitu ci làmb <laughs> comprendre doy ta grand la suñu grand la bi muy bëree ñun bëreewul ah. li ngay wax mooy bu ñu tàllalee loxo tamit dañuy bëre ak moom parce que champion lan daanal na te yàgg nañ ko topp pour bëgg a bëre ak moom. Moussa Ndoye waaw wax Moussa na wax mu ne xamul Garga de affaire waaye fi mu toll nii ne xam ci làmb. est que loolu du yabeel. non loolu dama bëgg a bëre ak bu ko gisee du jàpp ni. kii yabeel la parce que erreur bi mu am ci diggante mag Sa Thiès tax nga. yàlla xam ne ni su ma jëlee dama koy daal. yow mi billaahi du question ay maanaam dama bëgg a bëre ñoom moo tax ma ne loolu yàlla xam ne ni ñu maa bëre ëpp ñu ma sañ-sañ ci làmb ëpp ñu ma doole comprend lool lool dama bëgg mu leer jili si nga làmb alam lébu la te gaynde mer la fanaane champion la nangul naa ko loolu waaye dama ne la su ñu jëlee may ñu chance hmm. yàlla xam na ne dañ koy daan xooli leneen parce que ñun fi ñu teg suñu làmb actuellement ci làmb waaye Moussa Ndoye dañoo bëgg ci làmb titre bi nga xam ne moom la Modou Lo yor dañoo bëgg bu ci paree mu jox ñu ko ñun ay rakkam ñu téye ko sàmm ko parcelle dafa am leneen looy beneen xar kanam bu mu war a woneen ci làmb dul ay fi ñu toll nii ci làmb Hmm. parce que suñu grand ñu ngi fii ñu ngi def li ñu war a def yëpp li ci des nag ñun ñoo war a def fulla ak fayda mottali ko di wax nag waa parcel yëpp ñu jàppale ñu dooleel ñu parce que affaire yi nekkatul Garga 2 mu am combat Fadiar rek génn déedéet hmm. Parcelles gépp war a génn un ba vingt six xam nga Golf Sud Sitalin Saw parce que fa lañ bokk ndax ñun foofu la ñuy tiitaroo ñun ay doom Parcelles la bu Gora Sock amee combat tamit du Cambérène kese ñoo war a génn parcelle gépp ñoo war a génn topp ci ginnaaw hmm. comprendre hmm. loolu mooy tax valeur bi nga xam ne moom la booy bëgg engagé na ci làmb bi ñu wane ko ci bu baax a baax hmm. mais depuis bi ñu sampee jàmbaar wrestling academy ba léegi jàmbaar amul benn xare wala benn combat boo xamante ne dem na ci ni ñu ko bëggee ñu amee ko noonu gis nañ ko ci Modou gis nañ ko ci Goro Sock gis nañ ko ci yow gis nañ ko ci Papa Sow ak Siteu lan la ndax des fois koo wax rek mu ne non yàlla yàlla yàlla yàlla mais yàlla yàlla bay sa tool xam nga ñun li ñu waroon def def nañ ko hmm. mooy garga de xare yi ngay dégg yëpp nu ngi koy waaj dem yàlla dogal na yàqawul ci man hmm. damay waaj ba pare suñu borom moo bëggee mbir yi noonu xëy na hmm. franc ngeen nan ko fi yóbbu ko mu dem bële ji daan wala déet mais est-ce que boobu ci turu jàmbaar la écrit jàmbaar la fi la doon entraîné même bu fekkee ni boobu ah, adhéré gul ci écrit waaye boobu ci écurie jàmbaar Wrestling Academy fi la doon. fii la préparé na fi turu turu préparé na fi ñaari combat hmm. dem bëre ji daan. Hmm. préparé nañ fi bébé bismi mu préparé ji dem daan. ak yeneen i booy fii. Hmm. daam seen aussi. mais combat yu mag yi ñi nga ñi ñuy wax mooy. ténor yi ténor yi téye jàmbaar loolu laa lay expliqué. mooy maanaam jaama pexe yàlla dogalam. keroog man bi may ngeen mujj dem làmb ja su ma leeroon ni su ma su ma demoon sama adversaire du ñëw. ni ma ko bëggee. kon du demee noonu. mais promoteur boobu. déggante ngeen ci diggante bi. waaw Ibrahima Diop si waxtaan après combat bi waxtaan nan bu baax wax dëgg yàlla. mu ngi nekk di ma wural adversaire sax d' abord parce que moom suma ma juumul woo na sax Moussa Ndoye pour sama cas ak ay adversaire yoo xam ne mu ngi koy proposé quoi. Hmm. di ko ñaanal. ndog-ndog boobu mu yem foofu mu nekk sangaay ci moom mm. yàlla ubbil ko yeneen buntu wërsëg mm. combat yi nga xam ne moom la tëgg jëm ci tamit suñu borom defal ko ci réussite totale parce que loolu lañ ko yéene ndax nit ku baax la mm. ak njabootam yëpp ah grand Ibrahima Diop ñu nga gis diggante combat franc ak soq ñu ngi ci jëm dimanche bi bii ngeen jëm ah. samedi bi ñu jëm mu nekk combat dimanche bi ñu jëm le 19 ah. mu nekk journée boo xamante ne vraiment ñu bari ci axlu làmb dañu koy xaar ngeen yab Franc mu war a bëreeg Sokh ñoom ñaar daanaka ci loo xamante ni séntuwuñu ko woon ci moom enjeu wu combat bi fan la leen toll. waaw di ñaan rek eh, bu dimanche ak jàmm yàlla ànd ak di ñaanal Franc di ñaanal Sokh mu bañ am benn ndog benn gàllankoor. bari na ci làmb parce que làmb dafa metti daal. Hmm. muy Sokh muy Franc yëpp maa leen di ñaanal ak seen i supporters tamit ñëw ci jàmm. Hmm. ñëw bëre bi diggante soq la ak franc. Hmm. loolu supporters yi laa koy wax. Hmm. muy waa parcelle di waa Pikine. Hmm. nañ ñëw sañ sa ba rafet supporter seen mbër. ñun nag franc lañ àndal moom la yéene moom la ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. te lépp lu ñu war ci bis bi ñun dinañ ko def gunge ko. ëmb ko yóbbu ko ci làmb ji yàlla may ko ndam incha allah. Hmm, am na solo mais Garga fan yi dañuy gis communication boo xamante ci mbëru làmb yi mun na ñàkk. parce que gis nañ ku mel ni Franc hmm. ak euh, Sokh ñu toog plateau. Hmm. ki naan jotaay bi may toog ñeme woo faa toog ci en tant que mbër. barki démb gis nañ fi ñaari mbër yu def signature contrat ku mel ni Coly fa 2 ak Ada Fass ñu ne non man maa la gën a nekk criminel maa la li ma dugg jeel duggoo ko ah, jeel loolu est-ce que mbër war na communiquer loolu ay mbooloo di la topp wax dëgg yàlla suivre ma ko waaye maanaam làmb hmm. mën nga ko jaay saa nga déborder hmm. man loolu laay wax quoi samay rakk hmm. sama moromu mbëri sama rakk mbëri sama nawle mbëri parce que ñun ñëpp ay nawle nan am na loo xam te ni ñun dañ ko war a jommale suñu bopp am na foo xam te nit ñi dañu fay séentu te buñ lay séentu ci gaalu xaj waruñu la man ngeen ko jaay sans ngeen déborder sans dugg ci vie privée jàmbur. Hmm. comprendre hmm. nit ku nekk am na loo xam te ni tey buñ la ko waxaloon du la neex. muy hmm. man muy sama morom mi keneen a keneen. ngelaw waaye bu ñu amatee bis nañ ko jaay. te ñu def ko ci yar ak teggin hmm. Balla Gaye 2 da jël làmb jaay ko wa mu neex ñëpp hmm. amateur yëpp naan ay li Balla Gaye 2 wax hmm. waaye du déborder Modou Lo même sos xam nga Eumeu Sène même chose maanaam grand yooyu ci lañ war a roy ku ci mel ni Bombardier Bombardier mus ngaa gis mu wax dara lu ñaaw ci làmb mus ko am ki ki mu faral ki faral beneen mbër sax bu Bombardier waxee ba nga naw ku ci mel ni sunu mag Mouhamed Ndaw Tyson Yaxya Diop xam nga yooyu noonu ci valeur yooyu ci lañ war a xool ba jaay làmb te du déborder parce que làmb bu fekkee dañoo bëgg yenn sponsors yi ñëw am na ci loo xam te ni dañ koy jombale suñu hmm. parce que làmb affaire de noble la affaire de garmi la. comprendre nga. Hmm. loolu daal la ci lu may wax sama rakk yi mu bëree. Franc euh, kii dafa bëre euh, nu mu tuddati Zarko dafa bëre da ngay war bëre ak Mama Lamine. mu ne buñ ko joxee cinq cent mille mu sauver bi. non man loolu sax bëggatuma ci wax. parce ah, que faw ngeen wax ci parce que yow ma jël la laaj la micro nga ni ma bu ñu ma fayee cent franc ma bëreeg Zarko. non xam nga lu tax ma wax ko daf ko wax ba pare jëlaat weddiwaat boppam. comprendre nga man li may wax ci nit ki rek man maa ngi fi pour làmb. ko làmb moo taxoon ñu xamante moom bi làmb moom jeexee. Mm-hmm. micro bi wane na ni làmb moo taxoon ñu xamante bi làmb am jeexeet. Mm. ñibbi na fa mu dëkk boobu ba léegi sequñu dara. amoo leen benn relation amuñu benn relation. di ngeen wotante wax rek suñ ma fayee xaalis. Mm. man damay bëree ak Zarko. <laughs> su ko bëggee su ko bëggul nag. da ngay bëree damay damay seeti leneen. mais bu bëggee da ngay di bëree. su bëggee da ci yow moom sa côté. bu bëggee bëree su bëggul da ngay su bëggeewul moom ndam xooli feneen. waaye man. ci làmb laa nekk. kon bu dugal ay affaire non du ma bëreeg waa parcelle du ma. moo taxaw ni day bëreeg waa parcelle man mënu ma nangu nga taxaw àdduna bi yëpp di la déglu nga ni ma nga ni Modou Lo sax bu ñu ko fayee xaalis mu bëreeg moom. bi laa soxla la. roi bi la wax la soxla. man hmm. làmb laa fi nekk rek Modou Lo. Hmm. comprendre nga xamante nañ bu baax mu ngi may gis maa koy dégg yaa ngi may xool. Hmm. doo sama mag man du ma sa rak <laughs> duma ma sa mag. Ah, doo sama rak buñ ma fayee xaalis damay bëreeg yow na leer bu fekkee bëgg nga boo bëggul nag mu xooli beneen bër. parce que kon bu la promoteur fëggoon léegi na la avancé. Zarko ngi nii boo ko indaale woon léegi doo ñibbi jëluma ko. moom ci moom lay des rek bu bëggee baax na bu bëggul ñu xoolee. leneen est-ce nañ ko moom di wax. moom seeti nañ ko ko. seeti naa ko mu hmm. wax ko mu wax leneen. comme leneen la wax moo tax bëgguma ci sori waaye man sama côté laay waxe parce que relation amu fi. parce que bu fekkonte ni nit da ngeen a bokkul écurie seen làmb jeex ngeen continuer di déggante voyagé na fi Espagne ñaata mbër laa bokkaloon écurie yoo xam ne ñu ngi déggante ba léegi. comprendre nga te hmm. jàmm rek la seq. Hmm. na rafet. Hmm. waaye yëpp nit ki mënul weesu nit ki am kombaam waaj ànd ay mbokkam ñëw ba ci biir làmb yi nga ne ma bu la fayee cinq cent mille nga bëree te yow li ngay wax mu leer na yow li ngay wax ni du dëgg ci yow non buñ ko fayoon cent mille moom maa boobu mu sauvé journée bi buñ ko dafa am problème cinq cent mille parce que keroog dégg naa muy wax euh, ak ak Waly Seck ci affaire cinq cent encore mu wax affaire cinq cinq cent mille na ñëw ñu cinq cent mille ngeen bëree ñaar waaw ah, loolu de neex la waaw bu ko ko mën waaye moom bu xam na li lamb moom bu ko bëggee xam na ni den nga fay xaalis mu bëree ak man bu ko bëggee su ko bëggul nag après ana way ñu xooli leneen yéen ñaar bi ngeen da ngeen bokkoon nekk écurie Dóor Dóoraat loolu loolu déggal ma la dañoo bokkoon écurie seq jàmm mu nekk sama grand mu nekk rakkam waaye keroog ni mu doxalee ak man daf ma metti moo tax man ma gis sama bopp te hmm. nit ku nekk nit nga te Zarko lim ñu yabee ba bëgg ñoo wan ni ñun ay xale lam loolu laa ko bëgg a wan bu ñu jëlee war ni ko ay xale ngeen. ay xale lañ am ngeen doole am nañ doole màgg nañu. te tarbiwu nañ bëre aussi est-ce que du Zarko moo la jàngal bëre. Zarko jàngaluma bëre ndax sama bëre yoo xam nga ne may ñëw dóor dóoraat car macha allah ponkal yëpp a sawar a bëre ak man man damaa bëre mbapat soog a ñëw dóor dóoraat de. di toj ah. ba yi ñu may dégg ma ñëw. nem si yàlla ko Camara maa ngi koy nuyu au passage parce que hmm. moom moo ma gis ne ma non da nga war a ñëw dóor dóoraat ak benn grand bu ñuy wax ah, grand Ousmane jos la woon ndeysaan mm. Mm. léegi mu ngi Canada ñu ngi koy nuyu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ne ma non da nga war a ñëw nekk écurie parce que làmb man folaa ko maanaam plaisir la ci man mm. question dama koy wax chaque jour dama ñëw bu doon xaalis moo ma bàyyi ci làmb ba léegi banaa parce que làmb man plaisir la ci boo xam ne dama ko bëgg fii laa doon jógee ñu bés yaaw gii di topp géew par géew ba ba parcelle nga loolu yombul comme daan bëre di ci laal bëre di bëre di daan di tëj di tëgg bi di continuer su ma bëree ba doyal fi kenn mënu ma daan mu continuer xooli feneen damay wax ni ku ci mel ni Pape Cambérène maa ngi koy nuyu. mu ngi koy dégg mbër mbër daa woon mbëre parcelle. ay mbër ngi fi woon ku ci mel ni ñoom mbës. xam nga jamono yooyu dóor dóoraat mu ngi tar dëgër. ay mbër ay champion xam ne da ngay bëre lu mat dix ponk yoo xam ne doo gis ku ci matul cent vingt kilos. déedéet ñëpp ay cent vingt kilos. comprendre nga maanaam moo tax man bëri awma ci awma ci problème quoi. Hmm. su ma koy def ci nekk à l'aise ak ku mën a hmm. ñi nga tudd nii ñëpp. bu fekkee nangu nañu bëreek yow di nga bëreeg ñoom. mais tey bu ñu bëree bu ñu nanguwul bëreeg yow mu Ndoye nanguwul bëreeg yow. Ah. Euh, Zarko nanguwul bëreeg yow Garga de fan la jëm. day ñaani revanche day may revanche wala day mbër yaay ñoom kese dañ fi nekk ci ay mbër. mais mbër yu ci bari am nañ combat. mbër yi ñaata mbër ñoo fi nekk yoo xam ne amuñu combat ñu ci lamb ji. limal say adversaire non du ma lim kenn waaye làmb ji du ñetti mbër rek. dama bëgg ñu bañ ko làmb ñu bañ ko focaliser ci ay ñetti mbër ak cinq mbër Hmm. làmb ji yaatu na mbër yaa ngi fi champion yaa ngi ci suuf ñii ñu ci kaw. mais Garga man dama gis ni Garga 2 ak Diène Kaïré combat bu neex la. ci làmb man xam nga lu tax bëgguma cee wax parce que hmm. ñoom nawlawuñ ma. muy loolu. parce que dama leen déglu ñu wax bëgguñu bëree ak man man taxoon ma ne nawlawu ma leen. moo ci wax. ñoom ñëpp Diène Kaïré dégg naa ko mu wax dégg naa aussi ki nga xam ne mooy kilifaa mu wax. Ah. man ku ma nawloo rek nawloo. non mais est ce que du question de soi mais pas ñàkk a nawloo. du soi mu ne bugguma bëreeg diw wala. waaw bu ko neexee bu ko neexee bu bëreeg man. waaye ah. man maa ngi ci làmb ku bë bëreeg doog man ren bu déwénee di nga bëreeg man ak ku mën a doon loolu sama ngëm-ngëmu bopp la sama philosophie bopp la gëm naa ne képp koo xam ne. Hmm. yaa ngi ci làmb ji ni doo bëree garga de ren ren nga koy waxee bu déwénee dinañ bëree. Modou Anta. Thiès maa ngi ci làmb ji dégg nga wax pour ñëpp. Modou Anta est-ce que bëgg ngaa bëri moom. bàyyiwuma kenn dégg nga wax garga dafay ne làmb laay def làmb. làmb ngay def mais Garga 2 ni ma jaaxal mooy adversaire yi. man jomm na maa wax loo xam ne du ma ko def. ah man mbëri koo ci wax. mu ne la dañ may daw soo ma woowee ni ma maag diw promoteur li ma wax dégg nañ ko su jaadoo rek dama naan leen ay ca. dama seetu ko parce que damaa yore ay staff man lin ma sant mooy demal nga bëre. Hmm. bu doon combat nga bëre. Hmm. su ma sañoon bala ñëw julli tabaski ma jot avance préparé ko ñëpp. waaw di ñaanal sa mbër parcelles yi nga xam ne dañoo am combat. Hmm. jëm ci ku ci ñu jiital ci Franc parce que moo ci am combat le 19. Hmm. ku ci mel ni Niang Mballo xam nga. mbëri parcelles parce que su ma nekkee di lim dama dul ma dal góor a soog aussi ñoom hmm. ñëpp yàlla na leen yàlla may ndam quoi ñoom ñëpp. ndeysaan maa lay jaajëfal bu baax ci teew bi ma teew fii. jiile yow suñu waaye nga dañoo yàgg. Hmm. waaye est ce que maa leen xamal benn affaire de jiile mbër bu yàqu la de. <laughs> waaw li may wax nii mbër bu yàqu non mbër bu suivre naa ko waaye nag daan na fi ay ah, jël na fi benn saaku ceeb <laughs> xam nga di sant tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ah, ah. mel ni suñu grand maanaam Gomis ah sam papa yaaram Dia hmm. moom maa ngi koy sant bu baax a baax taxawaayam ci ñun rafet na xam nga hmm. sama grand sa dex baabu hmm. El baabu xam nga Cheikh Fidior Khadim Touré maa maanaam samay nit lan quoi wax dëgg yàlla. Hmm. di sant sama goro yi tamit ku ci hmm. mel ni Arma ko combat moom sonnoon na ci trop. Hmm. wax dëgg yàlla maa ngi koy bu baax di ko ñaanal. bébé bi yàlla na ko suñu borom màggal. barkeel ko ci barkeel nabi sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu sama goro bu jigéen. Kolle Mbaye ah. Bouja Baye Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax Bu Kunta maa ngi koy ziar bu baax sama goro bu baax boobu di sant sama waa kër sama bàjjen maam say sekk hmm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak bu wér ak mboolem jullit ak njabootam hmm. di sant képp koo xam ne yaa ngi may jàppale sama non sama soxna moom non <laughs> ah, Amady Tako moom mooy sant bu baax la wax dëgg yàlla. Ah, baax na boo demee di nga expliqué sama sama la sama xarit la koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. ndeysaan waaw ah, njaboot gi mu am tamit suñu borom barkeel ko ci barkeel na sallallahu alayhi wa sallam. Mm, mm. di sant sama grand grand Silla. Mm. maa ngi koy ziar bu baax. ma soogi Silla maa ngi lay ziar gis naa taxawaay bi rafet na trop. sant Tuuti Njaay mi toog. wax dëgg yàlla daf ñuy jàppale bu baax. di sant ñoom Mollo ñoom Papa Sow bi nag jàmbaar Wrestling Academy yëpp maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla lafal hmm. leen ci seetaane. di wax sa képp seetaan nga ñaanal ñu ci loolu. parce que maanaam booloo bi am fii dafa yombul. Franc tey su ko woowee ni ko kaay sama kër añ. Hmm. yàlla xam ne du hésité. góor a soog même chose daam seen noonu xam nga. Hmm. loolu noonu bu amee ci gox rek. na ñaan loolu mu continuer parce que loolu mooy mooy dundal gox bi. xam nga di ñaanal di sant tamit. te bañ a déglu. bañ a déglu waaw waaw bañ a déglu. ma lay ba nga ñëw man la woo diw ni ko diw nangam la. waaw loo ci xam. waaw moo tax ku ñëw bu kenn ñëw bu kenn ñëw ci man. waaw nañ nañu def loolu di sant tamit waa Dóor Dóoraat. Mhm. parce que fa nekkoon xam nga. Mhm. yàlla ñu nekk nekkeen bu rafet. di sant staff bi foofu ku ci mel ni ñoom Cheikh Thiam. Mhm. bëgg Fallou. ah. sama papa sama xarit Aline Beng maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may fana gudd ak wér. Hmm. yéene bi ñu am ci moom ñu mottali ko. Hmm. di sant nag ñi nga xam ne ñoom ñoom laay ànd bu dégg bëccëg. ku ci mel ni Ibou Ndoye xam nga. Youssou Mbaye xam nga. Ah, ah di sant tamit waa Gol sama benn xarit bu baax. Silla Silla. maa ngi koy sant bu baax Silla bu garga dëgg wax dëgg yàlla sama combat da ci sonn xam nga. Ndiaye Diop. ah du sant sama gaayab daal gërëm naa ñëpp parce que suma ma limee rek dama du ma dal seex lum aussi ñu ngi koy sant bu baax borom lum kuti lum lum graafi ñu ngi lay sant bu baax t-shirt yeeg yëpp moo ko doon defar wax dëgg yàlla hmm. di sant maam père ba Mansour ba di ko ñaanal làmb ji mu jëm yàlla defal ko ci réussir totale parce que hmm. réussite la mooy suñu réussite nii hmm. wax dëgg yàlla di sant presse bi nag parce que yéen amuñu seen fay. Mm. ndax lépp luñ am ci làmb rek yéen yéen a tax. Mm. di sant waa wasaare TV di leen wax ci kaw ci kanam ci lu baax. Mm. jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi Garga 2 la ñu dalaloon bari na loo xamante ni jukki na ko ci wàllu làmb. vraiment ñi mu laaj ay adversaire am lañ ci làmb war naa mën a bëre ñoom. ñi nga xamante ni tamit bëgg nañu Garga am nañ droit ñoom it taxaw ne dañu bëgg a bëre Garga parce que xale la tey làmb yaakaar naa ni yéen ñëpp du ngeen ay noon da ngeen di xaalis